السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طهوها ويرزق يا ملكي نكتوها بي واسكنك أنا عجلا محمد حتى دين الله أركانا يسر وقني على وراه كسماء والآدي أجيب بسلي من حسن دي محمد أوتها بانا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليكم ورحمة الله وبركاته المدرسة الخديمية وعلى عبد الخديم والتربية الروحية وعلى عبد الخديم ويبسال وإن الله من إليه راجعون جلين شعر سيد مصطفى سرم أهل هجم سرم سرم أم سر الله سام بقلم كلب وعينك jotaay bu ñu amoon maak moom ca Daaru Xudoos dama xam loo ko xewati ñu bokk yenn fa ci am néeg man ak moom ak maam benn maam benn buub rahimahullah ñaan ñëpp kon xana leen yàlla doolu leer ñu toog ci ñu toog ci néew keroog <coughs> wax naa ko sax alaaji Mustafa ne ko maam benn buub mii te ñoo te ko bind boobu boobu à la soit boo booba mooy ministre de l' éducation du mu ne ko mu ne ko mu ne ko téye fenn bind ko filmé ko ko ci ordinateur yi man la moom lem xam yàlla rek ba bëgguñu ba bëgguñu asakir taarixiya al afriqiya mémoire historique bu Afrique ñu ñu leen ci ko waaye tey mel na yooyu moom yëg-yëg man xam naa man li nga xam ne Cheikh Anta Diop mooy sama mooy boo xam ne moom lay ba ba xel xam naa loolu moo tax moo tax xam naa waaye waaye nga xam ne loolu loola gisuma ci sax dara juddoo si ba tey digguma ko mën naa am na waaye digguma ko digguma ko daal jataay jataay ba ñuy waxtaan alaaj ba soosi moom ñuy wàcc tey daal di wax di wax alaj musulum sulum nomor mu doxe mu ne alaj di mu doon bind jëm na jor mu doon bind jëm nyar, te te fukk ñeek ñaar ñi doon atté afrique so jant bi france yi ci la bokkon mu ne loolu yéem lool ci loola dana ko digg dikk loola mu ma ma tuba alaj dafa ak ñu bi bi di ciow a gën xalwa dal dal ne bayam duggal ci ci ne bi si si na jibril fi lola lola da na ko dégg sax sama bay bu yàgg waaye alay ay alay Mustafaa mooy nettali ne ko duggal ñaan ba lola ginnaaw loola eh, alaji musafa ba neena na alaji Mustafaa Musulum daa tëdd guddi ndar nee na nee na boobu ab itas la fi yor nee na nee na ma booba moo xaw la wax wala gouverneur gouverneur ñoo fa am ñoo fa am président ba président gaasa am mu ne ma mu ne mu gis Sëñ Tuubaa wàcc ci ab ab fawal naaw ab avion wàcc ci balcon bi dikk na ne ko ma suran suran demal nga jàppale Muudu Mustafaa ci liggéey bi nee na mu daal di jaay li mu kër yi daal maanaam neuf nga ca dama xam dix la wax wala neuf ci kër yi kër yi titre foncier moom moom la Moustapha Sourang wax wala Moustapha Sourang wax nee na mu jaay ko kon ma ne kon bu dee dix-neuf bari na bu dee neuf bari na juróom-ñeenti kër wala fukk ak kër teg ko tuma waaye neuf ji daal fàttali ko naa ko nee na mu mu jaay ko ëmb ko lépp dal di dal di ne da ko yót si si na ba mu ba mu jàppee ne ñëw ci Cheikh Moussa ne ko ne ko gént naa de ma surang alaaji ma surang surang wala ma surang surang di fi ñëw Cheikh Moustapha ne ne ko kon demal na gàttandu ko ko añ loola nga xamante ne boobu kon connexion am na gént naa ne kon loolu kon foofu foofu foofu xam ne gént walla yi Moussa ñëw indi indi ko xaalis ba jor ko jor ko Cheikh Moustapha nee na ma bokk na ci liggéey El Hadj Mansour Moussa ci ànd ak Cheikh Moustapha ci liggéey ba. nee na ma nee na ma nee na ma alayhi salaam ginnaaw moom bokk ko condition yi ma ngi xam na ko ca ca mu ne ma Alaaji ne ne ne Alaaji ma surung da nga koy titre conseil suuf si li wër mm, sëñ bi mu ne ko soo ko defee dana tax ba tubaab yi dañ ko sañoon jël yóbbu ko ginnaaw bi dañ ko fi dañ laa mayoon ndigal nga indi ko fi ci ci ndigg ko ndax ko maanaam njëriñ bi la ko mayoon waaye boobu góornóor ñu dara boobu joxe ko ndigal kon tubaab yi dañoo si seey seey boo ko nañ ko ñëw jël si te duñ nga tàgg ne ko it ñaareel ba it mooy duñ ko def ab église duñ ko saña def ab bistron li wër sëñ bi loolu El Hadj Moustapha Saloum moo ko xalaatal Cheikh Moustapha bañ defee ko noonu mu yaakaare ba tey jii dégg ko lu jege jumaa ji am ab bistoron lu ko jege wala mu am euh, ab église église bi moom moo ci gën a amati ma ñàkk ko fay am muy muy lu am solo El Hadj Moustapha surug mii nee keroog bi sëñ wootee yokku jumaa ji nee na mu daal fay weer te banque ba la nee na daal rek daal di daal di daal di digg bëccëg nee na ba ba mu agsee daal di nuyu sëñ Blaat wax fekk ko ne nee mu toog mu wala wala mu yàlla ma nuyu ko jox ko xaalis bi ne ko lii de sama payoor la ma ma ko fayoo rek indi ko ndax ndax liggéeyu jumaa mu ne ma dugal ci néew eh, gaal googu nekk ci sama ci sama kolal bi ubbi ko dóol ko ci tiñu <coughs> nee ma bu ko dóol daal di mu ne ma ndab de ma maa ci na ma daal mu daal mu daal di ma fàttali ne nag waa sa maam mm, uh, uh, kër yooyu kon day mel ne kon moom ma koy yeesal borom wax ma wax wax am solo xam ne ne mooy tënk wax ja moom daal dina ma sëñ Bàmba lim yor da koy jaay da jënd mbaa jëndal la suuf sëñ Bàmba yor da jaay jënd mbaa lim yor da koy jaay. da jënd mbaa ñu jëndal la kon kon ku maam yi jëndaloon ku bàyyee jëndaloon aar ah, aar ko na képp tele kattan yàlla nañ ko ah, loolay suñu waxoon ca suñ jaay ci mu ngi ko sa sant mu ko gërëmee te am am ak mag mu ca addu naa ko bu ko yàq sëñ bi ne ko bu su ko jéemoon du ko man yàlla na sar ci nun ñëpp ñun suñu maam jëndaloon xam naa suñu bàyyi jëndal ñu xam naa yàlla nañ yàlla nañ yàlla nañ jëlee dolli ci nag yàlla nañ jëlee kon allah ji Musaa suram yàlla nga yàlla dolli leer mooy doomi soxna bintum Cheikh Moussa mooy doomi soxna bintum ku am solo la ku am solo la kenn déggoo ko ci daray adduna ji lu may jàng xam-xam nekk ca loola professeur boo xam ne fa mu doon jàngi sax nañu dañ ko bëggoon a waaye waaye président Abdoulaye Abdoulaye Wade jamono jooju moo ko moo ne ko kaay jàppale ma ci liggéey bi. woo ko salaamaaleykum wa rahmatulah.